ah ملائكة الله ملائكة الله لا زلتم من الكون الله ها bi muy am na mu mel ni bi muy ñaan kàddu xaw naa sax gàntal ndax xamoon ni fii lay jëm ndaa am na lu nga xam ne xajul ci kenn ملائكه الله لا زلتم من الكرماء حفت بجمعكم طوبى لمن حضروا ملائك الله لا زلتم من الكرماء حفت بجمعكم طوبى لمن حضروا moo mel ni mënuñu ci weesu loolu way juram yi fi teew yépp ak maamam yi fi teew yépp seen wax sori na ci nit ñi bari na ku defe ni sax waxinam rekk moo ma emporté waaye baytu Seydil Hadj Malick biñ doon way léegi alaa yaa rasulallahi kulli wa jumlati fa inni fi hada zamani garibu وعادي حرارة الفؤاد لتنطفئ وقد زاد من ضيق الزمان لهيب xam nga ko day ni Maodo buy dem bay wax yonent bi ni ko wallu ma gaaw ndax tumu ranke na lool ni ko sama xol jamono bu ma yàgg foogee ni mu ngi giif rekk leneen taalaat ko Maodo dooy wax de waaw wax yonent bi ni ko bu yàlla araamalul woon xaru kon dinaa xaru ma xam ni Maodo ak mayam Maodo ak cëram Maodo li mu daj ndegam mooy dem ba bu yàlla araamalul woon xaru kon ma xaru moo tax ñun ñu war a xam ni defuñu dara te dama doon dégg ci góor gi muy wax ni Serigne Babacar daf ko daan wax moom Seyid Cheikh ñu ko boo fekkee woon sa dundu maam kon ku déggoog moom ngay doon ndax li nga dégg ci philosophie waaye tabaarakallaahu ñoom loolu lañ leen di ñaanal moo di bu fi seen maam nekkulit yàlla may leen ñu déggoo ak moom damay fàttaliku bëccëg bi ñu mujje gise maag moom ma nekk fii Tiwaawoon ci bisu gàmmu ñu nekk ci accueil bi fële ci kër Soxna Sofi ñu fekk ma fi ma toog ci salle bi ni ma góor gi moo woote téléphone nee na boo paree fii nga ñëw wuy si ko bi ma ñëwee ba toog ci canapé bi di ko xaar c'était la première fois ci sunu dund mu jox ma rendez ma di ko xaar ndax fu ma mës jox rendez ci fonkeelam moo may ubbil bunt bi waaye keroog ma toog di ko xaar waaye bi mu génn see gàddu yatam boobu may xool ci suufu laafaam fii gis mu weextal waaye bëjjaaw bu nuru nuroowul ak bëjjaaw yi muy dox mënul sax dox dox bu sotti ma jóg gàttandu ko mu ni maa gis nga sa màggat gi de lisaan fekk booba man xamatuma ndax kaw laa walla suuf laa nekk waaye jékki-jékki rekk xaalam soppi ko ndax xam na ni man nekkatuma fi te li xew tey lool la doon bañ ma def ko ci bés babu stef ma ni ko labbayk mu ni ma yàlla dara safu ko ma yëngal sama bopp rekk mu ni ma gis nga àddunaam bii fi nekkoon di xeetu yonent wala muy xeetu buur ngoon nag ma ni ko amu ni ma duma dem kursu ba mu ni ma mag ñi ñoo ma wax ni naa la wax nga dem ma ni ko ëpp naa def ee gëlawuma sama kàddu sax mu nu ma benn caractère bu nga xam ne ni ma man tëraluma ko de ñoom ña ca bàmmeel ya ñoo ko tëral kon nag bu ngoonee na nga dem kursu nga waxtaan ak ñoom la ma daan waxtaan ak ñoom ni ma ndax da bëgg Pape Malick gunge la ma ni ko bu noonu nga ko bëggee it ñu doxale ko noonu mu ni ma foo bëgg mu fekk la fa ma ni ko xanaa fii ci sa saal bii ñu ñëw tàllal la sunuy loxo nga ñaanal ñu suñu soog a dem kon nag baax na dinaa wax Pape Baling mu ñëw fii waaye dama la koy dénk ndax man màggat naa waaye moom it wéru ma di la ko dénk ma di ko incha mu ni ma tàllalal ma ñaanal la ma tàllal mu ñaanal ma ma jóg mu di ma gunge ba ca bunt ba ndeka laa tëj bunt bi bay sol sama dàll mu ubbi waat bunt bi ma siggi xool ko mu ni ma ana sama waa kër ñi te boobu ñoom maam Cheikh lay wax ma ni ko ñu nga fa mu ni ma nanga ma leen nuyul te man ma féetewoo ñaan gi ah. loolu moo tax lu naroon diis rekk woyof ndax dafa am ci xew-xew yi yu ma doon santiir ni bu ñu wattuwul rekk lu mel ni li xew tey dina xaw foofa nit la ku nga xam ni lu ko yëngal yombul waaye keroog dem na ba gis mu ñëw ba fii moom góor gi fekk booba man maay jël parole nga xam ni bu ma continuer rek àdduna tukki ma di dagg kàddu gi waaye nit ku nekk nit nga yéen ñi fi toog ñépp commencé ko ci Mouhamed Mbacké Abdoul Wadoud bi li mu wax fii moom la gën a wóor ni moo ma gën a jur maam bi yéen waxaalewuma leen waaw keroog bi ñu ko waree tudd te Sëriñ Pape Malick ñëw ni ma ku ñu koy tudde ma ni ko man nga koy laaj mu ni ma dama doon yoonal rek mais ma gën a xam ku muy tudd waaw ah. bi ñu waxee tur bi ni Cheikh Ahmed Tidiane waaye keroog dama waaru sax sëriñ Mansour bii di taw Seyid Cheikh jël parole ni tey lañ koy tudd tey lañ koy introduire Sall mook man ñoo dend fiñ doon tuddee mu ni nii pochab génne benn parfum ni ma maa la ko indi loon ma xool parfum bi ñu bind ci héritage ma ni lii du hasard ma deme ci ndoom di ko ci ndokkeel mu ni ma dangeen tardé ndax ñetti fan avant ngénteem jox nañ ma tur bi mu ni ma te ma ko doon joxe suma pap Alaaji Mansour mu ngi taxaw mu ni ma sol benn jàllaaba bu vert citron mu ne ma maa koy gis mu ngi xool liir bi rekk nee na ma xam ni regard bi am na lu mu àndal ci wàllu yéene ak ci wàllu séti kon nag wali annani summitu min amrin bihi kon nag fa jazal ilahu fatan bihi sammaani loolu rekk moo dellu si te lam ma waxoon ni ma mu sëf ku naxul sa kilifa yàlla booleel ak njaboot yu la dul nax waaw yéen ñi fi toog ñépp damay mujj damay fenetel sax ndax kenn ku nekk li nga yenu ci cofeel àttanuloo ko waaw tax duma ko jox rendez-vous mukk moom Cheikh Tijani bii mu ànd ak rakkam mam Babacar ba nangoo dugg te mam Babacar duggul ba noppi bu gàmmu jotee ma ni ko ndax sa ñaw yi pare na mu ni ma ah, sama bos amul woon solo bu mam Babacar laa doon toppatoo waaw ma xam ni sutura yàlla mënul baase loolu ñu di ma nettali ci bi ñuy jox soxna Fatima boroom kër gannaaw tamxarit bi passé ñu ni ma gan ñi ñëwoon ca kër ga bu ñu bëggee jël escalier bi dem ci kaw rek maam Babacar ni leen ah déedéet nag waaw ñu ne ah, lu tax mu ni foofu barabu mam Cheikh la waaw du ma nangu keneen dugg fa waaw ma xam ni ñaar yooyu ñuy fayantee ñoom ñaar dafa jara sant yàlla dafa am ku laaj soxna Fatima ni ko lu tax ñi lay bëgg bare te bari ci di ay ñuy boroomi jër waaye dama gis ni yow ñi ngay séyal ñi ci yépp ay ndongay daara rekk lañuy ñuy doon soxna Fatima ni ko maa ko bëggee noonu ndax soxna Umu mooy sunu mag tànn na sang di doomu soxna loolu ñun doy nañu yóbbaale nañu waaw mu ni ko kon nag ñun liy jaadu ci ñun mooy ñu nangu ne ay taalibe lañu kon nag am jëkkëru taalibe moo jàddu ci ñun ni ko waxuma góor gi de waaye bis bu ma amoon jëkkër mu xool maam Cheikh def ko moroom rekk ma ñaan ko baat ma xam ni orma boobu am ci seeni diggante loolu lu jara sant yàlla la kon nag isaan ngeen baal ñu li xew sànq waaw nga Habib Gueye bii ca waxtaan bee passé ca kër ga bi muy def seedeem ci maam Cheikh booba moom i rangoñ yaa ngi ñëw mënu ko téye waaye ku nekk la nga yëg yaa ko xam sunu yaay bi jóge Mauritanie jooy na ba xamatul fu mu nekk ba soxna moo ko doon téye sax di ko dëfal bokki naar yépp ñépp seen rangoñ yi génn nañ من سر أهل الأرض ثم بكى أسا بكى بعيون سراء وقلوب nit ñi bu ñu amatul yi bët ndax seen bët dañ ko ak ci sa bos amatuñu xol ndax seen xol dañ ko ak ci sa bos sëñ Cheikh nee na booy jooy bu mu sore ndax ci bëtu ñépp ci ngay jooye ci xolu ñépp ci ngay tiisloo waaw looloo tax ñu di leen jéggalu waaw ومن سر أهل الأرض ثم بكى أسد بكى بعيون سرها وقلوب waaw ma tax na kon nag dafay am luy sori ci nit ndax yi ngay gis day bare fajar rekk yaay bii mu ngi may wax ni ma waxal ñoom Cheikh megg ñu gërëmal la Alioune Dia ndax nit ku amul moroom la nit ku am yitte la ajjuma bu jot fa mu nekk ci Togo dina ma yónnee message ziyaara ci ajjuma ci ñaanal xale yi nuyu soxna seeg waa kër gi yëpp ni maa ngi yeesal sama lépp di ci yóbbaale nag ñi ma ko bokkal ñépp fekkee tabaarakallaahu yàlla mooy def noonu ci gannaaw dañu yendu yendu bu ñu limité imaam Cheikh Mbengue ngi toog imam Moussa Gueye a ngi toog sama mbokk mi may tàllal loxo léegi te mu ngi nii ma jàkkaarloog moom te mu jël lu net yi ak ko fii ñu koy wax Ibou Lollo keroog ma nga ca yendu ba waaye moom it buy wax rangoon yi day wadd rek waaye mu wax fa wax bu am solo mu ni mën naa may nit lu ne ba mu des nga lal sama nit waaw ku laal sama nit dootoo ko def abadan waaw waaw ah ma defe ni kon nag sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane dama ko dégg ca géejawaay mu ni sunu borom waxoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko bul xulóoti del bàyyi ma di la xulool mu ne ko ndax xuloo day laaj saaga te yow dañu la yar mënuloo saaga waaye man yàlla nag mën naa saaga ku ma neex te dara du ca dëkk kon bul xuloo ti bàyyil ma di la xulool waaw te li ko indi ma jox rendez ma ñëw ñu toog waxtaan mag moom lu mat ñeenti waxtu ba maa ngi koy ñeewante sax ndax toogaay bi di ko ci bàllu mu ni ma mu sëf lii rekk la soxla bi ma génnee am nit ku ma dab ni ma xanaa ci sa baay nga jóge ma ni ko jógewuma ci sama baay ci sama sëriñ laa jóge waaw mu ni ma mën gëwuma seen baay looloo tax jëluma ci moom werd ma ni ko ñun na gëm nañu sunu sëriñ moo tax ñu jël ci moom werd wax ja jib foofa moo tax mu waxeek man noonu ni yàlla nee na ti bi bul di xuloo bàyyil ma di loo xulool waaw ma defe ni kon nag loolu ku ko am ci sa kilifa waratuloo am lu la naqati waaw bu ko defee kon nag ah waxtaan sax xajatu fi Malick Mbaye ñaan na ma ko sànq dafa tolloog nag ñiy jàng suuratul ixlaas ak ñi donn suuratul ixlaas bokkul sëriñ si fii ci Sénégal yépp dañuy jàng suuratul ixlaas qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad mais am na ñoo xam ni talatuñu di ko jàng dañoo donn suuratul ixlaas moo tax kuy bëgg a ànd ak ñoom ci biir jamono booy boo nga wàcc sa bopp ndax ànd ak ñoom yombatul jël nañu ahadiya ba jël nañu samadiya ba jël nañu lam yelit moo tax ku leen jàpp bàyyi ñàkk nga walam yuulat ku leen jàppee doom ñàkk nga walam yakun lahu kufuwan ahad ku leen jàppee jëkkër ñàkk nga waaw jeex na danañ toog nag léeg-léeg am lu ñu may nit ñi lekk ndog yow ceeb bi lekk ndog yow cere ji waaw naana ndog yow attaaya ji c'est bëgg laa bégal rek ak bëgg laa sagar rekk waaye talluñu ko waaw waaw moo tax baatu rafiu darajaat ku ko firi tudde ko ku darajaam yëkkatiku la déggoo ko parce que rafiu darajaat dafa di dellu ci baat bi góor gi doon wax ci wàllu yonent bi nda ni dafa incorruptible, physiquement et moralement. yonent bi mënuloo fexe ba corrompre ko ni physiquement ni moralement parce que rafiu darajaat tiim na tiim na yi ñuy naxe nit ñi yépp na leen parce que alkamalatul ilahiya jox nañ ko yëpp jox nañ ko kamalul ubudiya jox nañ ko kamalul axlaqiya jox nañ ko kamaalu sharciya jox nañ ko kamaalul umamiya waaw jox giñ ko jox kamaalul ubudiya moo di huwa sajidu qabla alwara salli ala sajidin qabla al wara ca Maodo ca Taysiir ba waaw koo xam ni ba nit ñi ñëwagul ci nekk mbindeef ci kaw suuf te nga commencé di sujootal yàlla kooku kenn dootu la dab kooku jeex na bu fekkee ni kamal al axlaqiyaat la wa innaka la ala xuluqin adim ñu bari dañ ciy juum di wax ni jikko yi war nekk ci yow yépp nekk na ci yow déedéet la ala waaw la jikko yu màgg yépp tiim nga leen tiim ga mu ko tiim moo tax nit dootul ak lu mu séenu waaw bi ci des mooy kamaalu shariyaat loolu moo tere yahud yi nelaw moo tere it nasaara yi nelaw muy al yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al diina juif yi di ci rey seen bopp chrétien yi di ci rey seen bopp parce que ñoo jiitu l'islam bi lu tax yàlla jox garantie bi Muhammad te joxu ko Muusa joxu ko Isa moo tax ñoom itam booba ba tey ñu ngi parfaire te essayer di parfaire seen religion mais fi ñu ko jaar est foofu la walla du foofu bu ñeenteel ba nag faf yeggale ko mooy alkamal al umamiya tama di kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas waaw ah waaw man ndax nit ñi dégg nañ ko walla déet dafay am ñoo xam ni dañ ko jàppe confirmation or que confirmation exigence la kuntum jaadu woon na ci yéen ngeen nekk xayra ummatin ngeen gën ñëpp te kenn du leen gën waaye jaadu woon na ci yéen kon exigence la du confirmation waaw mu mel ni ñeenti kamalaat yooyu mu boole moom Muhammad loo tax ñu may ko mu nekk rafia darajaat bokkul ak wa rafanaahu makanan aliya bokkul ndax ñi ko yàlla mayoon ñëpp dafa am lu mu seetlu ci ñoom mooy li ñoo tuddee crise de personnalité bari ku ñu leen tudd ni yonent la te yàlla yónneewu ko bokk na ci ambiya yi mais bokkul ci mursalina yi moo tax lu mat la kër nitu yàlla yi daan naa ko wax ak yaay bi yaayam dafa nekkoon waalo waalo yu xer yooyu waaw dafa moo ko daan nettali ñu ree ba bëgg a dee nit ku gëm Maodo ba dof mu yar leen ci lool waaye bi mu duggee ci daara ji ba ñu yar ko ci ca la ma waxe ni bu ma señoon nga am loo fekke ci sama dund yaay ndax yu mel ni ñoom mag ñi ñu di ko ràññetle dafay am solo looloy tax ñaari affaire jàpp ma ñaari fan yi mag dafa yóbbante wax ni Seydil Hadj Malick ko wax ni ko na ma wax ma fexe ba ni xale yi mokkalee taysir bi naa fexe ba ñu mokkalee noonu xilaasu zahab waaw keroog nag ma toog ak oustaz du Fall bi faral di nekk TFM mu ni ma man dey dama jaaxle di ko waaw ci lu mel nan bokk a ngi toog ci tante bi fekk na waxtaan wa mu ne ma waaw fu ngeen jaar ma ni ko ci lu mel nan ni ma man dama jóge dakaar dem suñu dëkk ma ni ko waaw mu ni ma ma dugg ci biir salle de bain bi di xëppoo ndox ma dégg sama jarbaat bu tuuti muy jaabante rek di di tari xilaas bi ne ma ni waaw kii fu mu jógee waaw waaye mu ni ma ñun am na loo xam ne amuñu cant gi ndax loolu ku la ko defal ci sa njaboot amuloo loo ko mën a faye ñu waxtaan ca waxtaan bu sore waaye beneen bi nag laa xamul ndax imaam Samb lay waxal wala oustaz Cheikh lay waxal waaye mel na ni oustaz Cheikh moo ci ëpp responsabilité ndax imaam Samb la ko santoon ci xilaas bi def na ko fa tabaarakallah waaw oustaz Cheikh bii nag laa ko ni Seyid Cheikh moom it yóbbante na ci man ni nañ ko defal benn daara alquran ci Tiwaawan njaboot yi di fa jàng waaw ma ne oustaz Cheikh nag comme yaa yor al irshad yow boobu sa yitte la war a doon te bi ma ko waxeeg léegi ëpp na at xaw ma nag ndax def na walla deful waaye na Cheikh a ngi laaj xanaa bu ñu jógee ci tant bi mu jox ma tontu bu ko defee kon nag leneen nekku fi ñoom lañu bëgg wax nañ ko nga xam nga ni ku dem ba bërsax def recommandation yu toll noonu moo lay xamal ni ak seen seen àdduna sow waaw ma bëgg nag ñun ñëpp ñu takkat sunu ndigg màgget sax bu mënee jàng na jàng la mu waxoon ni ku deful tarbiya da ngay tarbe mu ne man mii di wax ak yéen tarbiya ma indi champ de course waaw moom Seyid Cheikh ma defe ni kon nag tabaarakallahu sëriñ Mouhamed Mbacke Abdoul Wadoud ak bokkam yu baax yi fi teew yépp duma wax sax ñu sant mbakke ndax mag yéen ñoo bokk sant bu la neexee ngeen ni si bu ma neexee ma ni Mbacke waaw waaw bi màggal gi ñëw xale dañu def benn montage bind ca kaw offert ano nos frères wone wane ma fi ma doon jànge xasida Sëriñ Tuubaa ba bañ ko yóbbu ca Libreville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 waaye ma di leen yëgal ni sëriñ mu Muntaqa ku baax la ku am yëg la te ku xam lu xew la ndax ñi muy defe ci gàmmu gi xam naa ñi ci tànt bi danañ ni waaw xanaa du kii moo fi doon yëkkat léegi waaw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 lu Seyid Cheikh terele woon mag ñu baax ña rek dinaa leen teral lu ni toll dama yàkkamtiwul nag ndax nekkuma ci suuratul ixlaas ma nga ca suuratul ixlaas waaw bu ko defee kon nag